amiin réew mi nag ñun ñoo ko bokk. diggante Sidi Diop ak Wally sekk amul benn problème. Mm-hmm. ndax ku ne sa wërsëg la ngay lekk. dëgg la Maria Sine may sa biige maar nit ku baax la. Mm-hmm. xamul lu ñaaw te du ko def te du ko wax. Mm-hmm. te yaag moom yaa ma gën a jege waali man. dëgg la ndax da ngeen bokk deret. dëgg la man nag sama soppele sama xarit bu ma nekkoon mécanicien sax du tee dama yàlla moom a xiir ci moom. li muy def mu bëgg ko. dëgg la yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci adduna bi. Umaro. man li ma laa bëgg. billaay maa la te bëgguma nga am defet bëgguma nga am gàcce. Mhm. bëgguma nga def naka su dul noonu. nit nag su meree faje fajaka ay wax. Mhm. su noppee dana rëccu. dëgg la maa ngi lay conseillé nga gën a dal. Mhm. ndax réew mi bëgg nañ la. dëgg wallaahi azim. yàlla seede na li may wax. lu ma la yéene ci lu bon yal naa la ci jiitu. dëgg la xam naa sa wërsëg nit ku baax nga taalibe Sëriñ Saaliw nga yàlla na yàlla gënal góorgóorlu. incha allah te xam ne àdduna yëpp la soxla. dëgg la dégg dëgg la jërëjëf pour nangu nit ñi di may nit ñi lu wax. dëgg la. dégg nga jëf Touré sama xarit rek maa yàlla na yàlla fay. jërëjëf am di kontaan naa